إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبحث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار نعوذ بالله من النار doomu ndey mbokk jullit ñu ngi sant suñu borom ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ndokkeel ci jaamu yàlla yu mag yu ñu jóge muy ashuru ayam min zulhijja di fukki fan yi nga xamante ne moom moo nekk ci weer bii nga xamante ne mooy weeru tabaski bi ñu nekk ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax a baax di ñu ndokkeel suñu bopp di naan yàlla ci jaamu yàlla mu néew mu bëri yàlla nañu ko yàlla fulal nangul ñu ko doomu ndey mbokk jullit ñi jullit bi fu mu toll rek war nay suivre li nga xam ne moom mooy programme dundam mooy dundam mu udal ko li nga xam ne mooy programme ba nga xamante ne bu tolloo ci période yi ñu toll nii pour mu évaluer boppam dafay nekk loo xam ne du yomb lay doon te bu ñu waxee waxu évaluer mooy que ne dañ ciy profité di wax ne at baa ngi jeex ndax weer bi ñu nekk muy weeru tabaski moom mooy weer bi mujj ci at bi su ko defee bu deewee rek dañuy dugg ci li nga xamante ne moom mooy at bu bees tàmbali ci li nga xam ne mooy muharram waaye at bii dañ ci seetlu ne dafay jeexee ci weer boo xam ne weer bu yàlla warmal la waaye ñu koy tàmbalee tamit ci weer boo xam ne weer bu yàlla warmal la yàlla bi mu bindee asamaan ak suuf ba léegi weer yi fukki weer la ak ñaar ci biir fukki weer ak ñaar yooyu mu am ci ñeenti weer yoo xam ne daf koo tànn mu nekk weer yoo xam ne yàlla moom moo ko warmaalal boppam lim ciy bañ nag moom mooy nit ki di ci tooñ boppam waaye di ci tooñ li nga xamante ne ni moom mooy moroomam ndax yàlla moom duñ ko tooñ lan moo tax yàlla duñ ko tooñ mooy bakkaar yi ñuy def ñun la man amila saalihan fali nafsi wa man asaa fa alayha képp koo xam ne def na lu baax boppam waaye képp koo xam ne def na safaan bi tamit boppam moo tax yàlla bi muy wax di woo gaa yi pour nañu tuub jëm si moom daf leen ne yéen ñi nga xam ne yéen a tooñ seen bopp la woote bu leen désespéré ndax moom yàlla moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki jégal bakkaar yi kon doomu ndey mbokk jullit ñi weer yi loolu lañ ciy bañ dañ ciy bañ nit ki di ci tooñ boppam te bu ñu nee tooñ boppam tooñ bi gën a màgg ci doo tooñ yi mooy bokkaale borom bi subhanahu wa taala tooñ tooñ weesuwul nit ki yàlla fi mu jaar ak yow wéet bind la nga judd màgg am say force am sa lépp pour di utal yàlla nent loolu yaakaar naa xel mu war a mën a nangu lool ku ci nekk rek war nga xool say mbiru bopp yi nga xamante ne say mbir privé la doo bëgg kenn am si accès doo ko bëgg bokk ak kenn buñ ci doon tib tib tudd ay exemple dañ ciy tudd exemple yu bëri kon wa kay fa borom bi nga xamante ne moom moo wéet bind la jaarale la fi mu la war a jaarale amul dara lu mu la sant lu dul ne jaamu moo nga ngir bañ ma bokkaale kenn yow nga koy nga juddu màgg am sa esprit am sa lépp am sa doole di ko utal li nga xamante ne moom mooy dend di ko utal li nga xam ne moom mooy ay morom àq bi nga xamante ne sa borom moom lay xaar ci yow nga jël ko di ko askanale keneen ku dul suñu borom subhanahu wa taala kon lii benn la rek ci point yi nga xamante ne nit ki war na koo moytu budul weer yi waaye rawatina li nga xam ne moom mooy weer yi nit ki tamit war na évaluer boppam ci jamono yi ñu toll ci fan la toll ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fan la toll ci jàngaleem fan la toll ci taxawaay li nga xam ne mooy taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeetam lan la ci lan la ci def at bi passé ci lan la nekkoon ndax mu ngi doon roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay sunnaam ndax mu ngi mooy tudd ko ay bidaa mu évaluer boppam xool moom nit ku nekk yaa gën a xam sa bopp bal insaana alaa nafsihi basiira nit ki amul dara lu muy def ci diine lu ne dafa xool yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la ko doon defee mu def ko pour mu wér nit lépp lu mu def ci diine waxuma nag suñu mbiru dund suñu mbiru dund moom suñu mbiru dund la nan la ñuy bayee nan la ñuy nàngamee nan la ñuy nàngamee loolu suñu mbiru dund la experts yi seen xel nag ci loolu ñoom ñooy lijjanti loolu waaye ci wàllu diine nga xam ne lii di mbiru diine la nit ki lépp lu mu ciy def dafa war a xool yonent saa salaam nan la ko defee woon ndax yàlla moom la yónni ci ñun moom la ñu joxañ ne képp koo xam ne roy na ko rek da ngay jub wa in tutiihu tahtadu amul keneen ku ñu ku ñu yàlla joxañ ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci époque bu nekk ci moment bu nekk ci jamono bu nekk fii ba àdduna di tukki amul keneen koo xamante ne dafay ñëw yàlla joxoñ ñu ne kii ngeen war a roy déedéet képp koo xam ne ñu ngi topp ci ginnaawam dafay fekk ne moom daf ñoo joxoñ yonent bi ñu àndoo ñun ñaar topp yonent bi saa sala mais su fekkente ne daf ñuy joxoñ boppam te joxoñuñu yonent bi dañ ko fiy bàyyi moom dem tëpp li nga xam ne moom yonent bi parce que bés a ngi ci biir bési nit ki dina wét ci bàmmeelam ba mu yaakaar ne yàlla moom rek la moom rek la bindoon te bu boobaa yàlla lan la koy laaj mooy da koy laaj nan la meloon ci digganteem ak ki nga xamante ne nii moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ko laaj ci digganteem moom ak kenn kon ci jamono bi ngay dund foofu nga mën a préparer loolu ba nga xam ne boo fa yeggee laaj dafay nekk loo xam ne loolu simple la si yow pour nga tontu doomu nday mbokk jullit ñi bu ñu yeggee ci période bi nit ki war na évaluer boppam xool fan la toll ci ngëmam imaanam fu mu toll ndax imaanam dafa wàcc ci at bi wala ndax dafay yéeg nit ki war na ci évaluer boppam xool lépp loo xam ne ay gàllankoor luy tax imaanam wàcc mu sori ko waaye lépp loo xam ne dafay yëkkatiwaat li nga xam ne mooy ngëmam mu nekk ci bokk na nit ki si li koy jàppale ci mu xool ndax ngëmam mu ngi dëgër ba léegi moom mooy mu xool nan la mel ak jaamu yàlla yi ndax daf ci teengal wala ndax daf ci nekk li nga xamante ne nii ku ci farlu la bu fekkente ne nit ki ku ci farlu mu xam ne ngëmam mu ngi au top ndax promotion yi ñuy yàlla di defal ci biir at bi yépp dinañ ci ñëw pour nit ki di mën a taxawal ngëmam la di ko defaraat ngir mu baax kon nit ki foofu lay natee boppam xool jaamu yàlla yi ndax mu ngi mën a yeewu fajar dem du julli ji nu mu waree ndax mu ngi nangam si yenn jaamu yàlla yi nga xam ne yu metti la lu mel ne julli géey nga xam ne da ngay lekk ba biir bi fees nga war a dem wuy ji ndax da sa yaram da ciy diis wala ndax jàng alxuraan foo ci toll ndax bokk na ci liy yëkkati ngëm mooy nit ki di jàng alxuraan nit ki bu demee sax ba gis ne loolu mooy solution bi bu demee ba gis ne ngëmam dee na ngëmam wàcc na li koy dimbaliwaat pour ngëmam mën a yëg moom mooy mu jàng li nga xamante ne moom mooy alquran fan la toll ci loolu loolu ay évaluation la yoo xam ne nit ki war na ko def nit ki fan la toll ci li nga xamante ne nii moom mooy ci xeetu yenn jëf yu baax yi muamalaat yi sa digganteeg nit ñi ndax yaa ngi doon ndax yaa ngi nekkoon koo xam ne ku jëriñ nit ñi nga ndax nit ñi da nga leen doon lor wala nangam nit ki war na évaluer ci at bii lan la ci nekkoon léegi nag su ko defee évaluation yooyu daf koy dimbali pour mu mën a xam étape bii laa jóge étape bii laa war a dem ñu xam ne fi ñu jëm lu baax dafa doy yow man xiyaam lu waay indi ci lu baax bésu réccu la dafay naan su ma yëgoon gën a defaat kon massa koo xam ne bu ñëwee moom indiwul lu baax lu waay indi lu baax ak lu mu toll toll toll bu ko yàlla fayee ba mu war a dem dugg àjjana day gis am na ku ko raw ba si xelam danaan bu ma yëgoon nangam kon bés la boo xam ne kuy dugg àjjana ak kuy dugg sawara yëpp dañuy rëcc kon nit ki fii la ko war a mën a préparer ci moment yi at yi ñu ngi jàll bëri na lool li ñu weesu bëri na amaana xëy na bii mooy suñu dernier at mun na am ñu fekk yàlla nañ yàlla may ñu fekk bu fekkee at yu bëree bëri waaye amaana bii mooy suñu mujjanteelu at kon nañ ko rafetal ñu yeesalaat suñu ngëm ba nga xamante ne bu ñuy dajeeg borom subhanahu wa taala dañuy nekk ñoo xamante ne ñu gëm yàlla lañu loolu yoom yàlla yàlla nañ ko yàlla defaral doomu ndeyu mbokk jullit ñi jaamu yàlla ñuy yàlla tegal yépp te loolu moom mooy nekk deuxième partie incha allah xutba bi mooy yàlla dafa am loo xamante ne moom la séntu suñu duñu ko xaar amul benn jaamu yàlla boo xam ne yàlla tëral na ko nit ki war a ko taxaw def lu dul ne résultat final bi ragal yàlla lañ ciy xaar amul benn julli bii ñuy def nii résultat final bi ragal yàlla lañ ciy xaar joxe azaka buñ ci paree ragal yàlla la ci lañ ciy xaar li nga xamante ne mooy aji màkka ragal yàlla lañ ciy xaar yooyu mooy ponk yi de weeru koor buñ ko wooree luñ ciy ra luñ ciy xaar ragal yàlla lañ ciy xaar kon fan lañ toll ak ragal yàlla boobu ci durant at bi nga xamante ne yii événement yi ñu wax yëpp jàll na yàlla nañu yàlla may dégg ak topp aquli qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala doomu nday mbokk jullit ñi comme ni ñu ko waxee yàlla buñ ne julli leen benn julli bu baax rek bu ñu ko yàlla nangulee tanha anil faxshaay wal munkar inna salaata tanha anil faxshaay wal munkar benn julli bu baax daf lay soril ci ñaawteef ak bàkkaar te loolu mooy ragal yàlla yo saa salaam biñ ko laajee lan mooy ragal yàlla dafa ne mooy nit ki jëfe santaane yàlla yi kéem talaay kàttanam waaye tere mu bàyyi lépp loolu mooy mooy ragal yàlla yàlla li mu la sant def ci sa kéem talaay kàttan am na koo xam ne tey buy julli mënul taxaw toog la mën loolu la mën toog boobu lañ koy la koy yàlla di évaluer am na koo xamante ne mënul woor waaye am na lu mu war a def jaamu yàlla yi da nga ciy def fees sa kam kamtalaay kàttan waaye tere yi nag moom amul bii mënuma tere yi moom da ngay bàyyi lépp bàyyil njaaloo déedéet mun damay xool mun naa mun naa ko mun na déedéet bàyyi bàyyil wax lu dëgg bàyyi lépp loo xam ne yàlla tere na ko bàyyi rek moo fa nekk amul mën naa wala mën a waaye santaane nag am na yoo mën am na yoo mënul kon yi nga mën yooyu nga def yi nga mënul yàlla du la ko topp kon doomu ndey mbokk jullit ñi loolu mooy li nga xam ne mooy ragal yàlla dañ koy séntu si julli benn julli rek nit ki bu ko defee war na xool gis ne comportement am changé na ci julli bi mu def parce que nit ki mënoo taxaw di julli jàng faatiha ak li làmboo faatiha yépp nga génn di def bàkkaar wala nga génn di waroog li nga xam ne mooy faatiha boobu rawatina li aaya bi nga xam ne moom moo tënk li nga xam ne mooy faatiha di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yàlla yow la ñuy jaamu te si yow la ñuy sukkandiku waaye nit ki naka la mën a waxee loolu bu génnee di basé wu ci ay gàllaaj wala muy basé wu ci ay leneen dul borom subhanahu wa taala dem seeti ay njabarkat dem seeti ay charlatan te pourtant moom après moom mooy dem julli jàng faatiha fan la toll ci loolu weeru koor jàll na luñ ciy xaar mooy ragal yàlla kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun jagleel naa leen koor comme ni ma ko jagleeloon ñi leen jiitu du yéen laa ko tàmbali lan moo tax may indi leen koor ngir ngeen ragal borom bi subhanahu wa taala fan la ñu toll ndax dañuy jóge ci weeru koor nekkaat si suñuy caaxaan te weeru koor nekk weer boo xam ne dañuy chargé suñu bëtri te bëtri balaa ñoo amaat occasion chargé waat ko weeru koor moo ñëwaat at baa ngi dee jóge nañu ci weeru koor lan lañ jàng ci koor gi koor gi dañuy gis ne bu ñëwee ñëpp ay féex jàmm dal xol yi tàbbiwaat tooy jàkk yi di fees nit ñi di jaamu yàlla nu mu waree zéro fët fan la ñu toll diggante koor geeg léegi nga xam ne quelque weer rek la ci nekk at baa ngi dee li ñu chargé woon ci koor gi fan lañ toll ci loolu loolu évaluation la bu ñu war a def fan la ragal yàlla bi toll ci ñun lan lañ jëlee ci koor gi balaa ñooy dugg ci at bi at bu bees bi loolu ay question la yu nit ki war a posé yàlla xéewal nañu at bi weer bi ñu nekk nii muy weeru aj am suñu yàlla xéewal ñu dem màkk am ñoo xam ne mun ñoo dem màkk waaye ñu dem màkk ni ñu amee tuyaaba ñu demul màkk noonu la ñuy amee tuyaaba lan nga jàng ci fukki fanu tabaski yi lan nga jàng ci xar bi nga tëral rendi ko te bakken la yor comme yow yàlla ne la soxlawul yàpp bi soxlawul deret bi soxlawul der bi ragal yàlla bi ngay am ci rendi bi la soxla ci yow fan nga toll ci loolu fan nga toll ci jël sa xel bi la yàlla jox ak sa xol bi la yàlla jox différent ak mala bi nga xamante ne yow yaa yow la yàlla jël terale la ko warmal la ci kawam nga jël ko rendi ko ndax da ngay bàyyi sa bopp di def lu la neex ba mala boobu mujjee obligé gën la ndax loolu day am yàlla moo ko ci alquran yàlla neen la am la an na jahannama yàlla neen dinaa feesal safara ay nit ak ay jinne lan moo tax dama leen jox xelal duñ ci xalaat ma jox leen nopp duñ ci déglu ma jox leen bët waaye duñ ci xool du caagante ne bët bi yaa ngi xool nii rek yaa ngi gis déedéet xool bi yàlla di wax mooy est-ce que yaa ngi xool dëgg ak caaxaan di ko ràññee mun koo moytandiku sa nopp bi est-ce que yaa ngi ciy déglu lu neex yàlla xel bi est-ce que yaa ngi ciy xalaat li lay jëriñ yàlla nee na ku appareil yi ma jox nit su demee ba nit ki jëfandeewu ko ko dafay dem ba mel ni mala ba mu yàgg sax mu ne balhum adal moo moom sax mala sax moo ko gën lan moo tax mooy appareil yi ko yàlla jox jëfandeewu ko pourtant même appareil yooyu mala am na ko de mala am na bët di xool am na nopp di déglu am na xel day xalaat ku weddi loolu dem ci gétt bi xool mbote yuy juddu di nga gis boo moytul gétt gi fukki mbote dinañ juddoondoo mais ku nekk xàmmee na yaayam ñi am seen xarit di leen bàyyi ñuy taxawaalu heure ngoon bu jotee dañuy ñibbiwaat seen kër loolu lu koy def du xel am nañu xel waaye fi yàlla nattee xel bi yow pour nga jaamu ko bañ koo bokkaale ak yàlla nga leen rawee waaye sa xel boobu la yàlla jox sa nopp boobu la yàlla jox sa bët boobu la yàlla jox boo demee ba jëfandikoo amaana bu ko defoon ci mën a bi boo moytuwul mu baax kon foo toll ci loolu kon nit ki bu tolloo ci weer bi war na xalaat xar bi muy jël di ko rendi fukki fan yi nga xamante ne dañ ko koo sant mu def ci ay jaamu yàlla moom moo gën ci yàlla mu ci doon góorgóorlu fan la ci tollu kon loolu ay évaluation la yoo xam ne nit ko war na ko xool te yàlla soxlawu ci dara lu dul ragal yàlla buñ ciy génnee kon doomu ndey mbokk jullit ñi lii mooy ragal yàlla ragal yàlla mooy nit ki évaluer boppam ci ndax mu ngi taxaw ci santaane yàlla yi ndax mu ngi bàyyi ay tere yi te loolu daf koy topp aji màkka foor na lool waaye yàlla lu mu xaar ci ñi def aji ba ñëw lu mooy lan tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa pour leen yóbbal bu ngeen demee màkka te yóbbal bi gën moom mooy yóbbalu ragal yàlla kon mbir yëpp kon nekkate ragal yàlla la ñun suñu jëflante yi ñu jëflante rek boo defee sa morom naka sudul noonu lu mu lay wax ragalal yàlla ittaqillaa kon mbir yi ragal yàlla la te ragal yàlla boobu bu nekkee ci yow da ngay donn àjjana yàlla nee na ñuy dugg àjjana donn ko mooy doon bu ñu nee donn nag mooy dugg ci anam bu yomb tey xale bi juddu fekk fekk way juram gaañu mu bàyyi alal lan la sonn ci alal bi sonn ci dara lan moo ko yomb la donn yomb boobu noonu kii doon àjjana ci yomb yombaay boobu noonu mooy ki nga xam ne mooy ki ragal yàlla deewaale ragal yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon nañu bàyyi xel ci yenn xeet jaamu yàlla yi nga xamante ne jaar na ci saison bi saison bee ngi nii di jeex mu ngi tëj ñu ngi dugg tamit ci saison boo xamante ne comme ni ñu ko waxee ci weer bu yàlla warmaal la muy weer mu xarram ñu koy tàmbalee tamit ci jaamu yàlla bu am solo muy li nga xamante ne moom mooy fukkeelu fan bi nga xamante ne mooy fukkeelu fan mu xarram ak li nga xam ne mooy juróom-ñeenteelu fan bi di Taasuraa ak Ansuraa nekk bés yoo xam ne ay bésu koor la ñu xam ne kon ñu ngi dugg ci at bi tamit ci ay jaamu yàlla ci koor noonu lay jaamu yàlla yi di continuer ba at bi deewaat beneen at ñëwaat noonu lay nekkee ba nit ki di wuy boroomam subhaanahu wa taala kon nit ki warul toog benn moment boo xamante ne dafay bàyyeeku wala dafay teengal ci li nga xamante ne moom mooy ci diggante moom ay boroomam chaque fois yàlla mu ngi koy jox ay occasion yoo xam ne bu ñëwee moom dina ci mën a taxaw mën a dellu ci li nga xam ne moom mooy boroom subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla may ñu fekkee at yu bëree bëri yàlla nañu yàlla may ñu fekkee at yu bëree bëri lépp loo xam ne làmboo na ci biir at bi nekk ay jaamu yàlla yoo xam ne yu màgg la yàlla may ñu ñu mun cee taxaw buñ ci taxawee mu nangul ñu ko loolu yomb na ko yàlla yàlla nañu ko yàlla defaral àjjana bi yàlla defal du pour moom bëggu ci dara bëggu ci dara àjjana bi yëpp pour ñun la dafa la ñu nekkoon dañ fa war a dellu te lu tax ñu fay dellu moom lan moo tax ñu fay dellu ak nan lañ fay delloo mooy taxaw ci lii mu ñu sant ay épreuve la ku génération bu ñëw examen bi dang dang siy jaar inna balaw naahum kama balaw na asaabal janna yàlla daf ñuy defal examen comme ni mu defaloon examen waa tool ba boobu génération bu fi jaaroon la ñii ñii réussir ñii échec loolu moom mooy am waaye nag yàlla na yàlla boole si ñuy réussir lii ñuy def nii ci examen la bokk bàyyi suñu lépp ñëw di julli si li nga xam ne mooy ajjuma nga xam ne ajjuma ak moroomu ajjumaam jéggal bàkkaar la tey ñu ngi nekk si loolu yàlla nañu yàlla boole si ñu muy jéggal seen i bàkkaar kon noonu la ñuy jàppee mbiri waxtu julli ak moroomam suba day ñëw tisbaar tisbaar ñëw takkusaan ñëw timis ñëw gée ñëw yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne seen diggante rek intervalle yooyu ay jéggal bàkkaar la waaye ci kaw kan ci koo xam ne taxawee na ko kon yàlla nañu yàlla yombalal ñu mun di ko taxawee bu fekkente ne dëgër na ci ñun tamit dañu delluwaat jàngat alxuraan dafay nooyalaat suñu xol nooyal suñu jëmm ba nga xamante ne dinañ mun taxaw di dem di joxe li nga xam ne mooy jaamu yàlla yu màgg yi fi ñu koy jeexale di ko dénk si dinañ ko dénk dañuy góorgóorlu ci yeewu guddi dañuy yeewu guddi am heure boo xam ne dañ koy jox suñu borom subhanahu wa taala ndax loolu góor yàlla yi dëgg nga xam ne yàlla daf leen tagg ci alxuraan ñoom ñooy def li nga xam ne mooy loolu te ñun ñëpp dañoo bokk ci góor yàlla dañoo bëgg bokk ci li nga xam ne mooy góor yàlla yi kon na am heure boo xamante ne ci xaaja guddi gi la nga xam ne guddi gee ngi waaj a jeex ñu jug ko jagleel ko suñu borom donte ñaari rakk la sax baax na waaye na sax moom mooy li gën kon yàlla nañu yàlla yombal li nga xam ne moom mooy xeet jaamu yàlla yooyu yëpp si li nga xamante ne mooy jeexitalu at bi waaye tam ci at bi ñuy dugg rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasanatan wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa lam taxfir lana wa taxfir lana kunna min alxasirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana axfir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani saghira rabbana axfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban nar wa salli allahumma wa sallim ala nabiyina muhammad محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله